ok incha allah ñu ngi war a jël tey aya 65 ci suratul maida ci suñu borom di waxe walaw anna ahla alkitab amanu wattaqaw alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi kon ci ngëneelu suñu boroom ñu ngi ni daje ci néegu boroom bi jalla wa ala ci fukkeelu fan ak juróom-ñett ci li nga xam ne mooy shahru ramadan ci 1444 mu nekk ci loo xam ne dañ koy taarale weeru koor mooy tiim téere boroom bi di ko jàng ndax ca la suñu borom yàlla tànnoon wàcce ko ca chahru ramadan allazi unzila fihi alquran waaye akay gën a nekk diiw su dee ne da ngeen ne doon mbooloo ngeen daje ci néegu borom ba di ko nafar seen biir bu dul woon weeru koor sax ngëneel yu réye ca nekk ca dal ga yàlla wàcc ci yéen ak yërmandeem ak malaakam yey ñëw wër leen ak tuddugam leen di tudd ca malaaka yu ne ca kaw ca kaw ana nag su dee loolee dafa tombe ak la nga xam ne nii moom mooy weeru koor loolu moo tax ba ñu ngi ñaan suñu boroom subhanahu wa taala yal na yàlla nangul ñu suñu jataay bi ca boole ñu ko mboolem ñu koy dégg ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf kon incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات بعيد ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين baarakallahu fiikum suñu boroom jalla wa ala mu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا بدون تندي ñi jotoon téere yi dañoo gëmoon ca ragal yàlla la kaffarna anhum sayyi'aatihim kon day doon nañ far ñel leen seeni ñawteef wala adxalnaahum jannaati naim ca it doon nañ leen dugal àjjanay xéewal ya walaw annahum aqaamu tawraata wal injil bu doonte ne ñoom day dañoo taxawal téere tawraat ak téere injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim ak la ñu wàcce jëme ci ñoom mu bawoo ci seen boroom di alquran la la akalu min fawqihim kon day doon nañu lekk ci xéewal yu leen jóge ci seen kaw wa min taxti arjulihim ak lu leen jóge ci seen suufi tànk minhum ummatu muqtasida nekk na ci ñoom xeet bu diggu doomu wa kathiru minhum saa ma yacmaluun waaye la ëpp ci ñoom day wala boog la bëri ci ñoom day ñaaw na lañu nekkoon di ko jëf yaa ayuha rasul ay yow yenentub yàlla bi balligh ma unzila ilayka min rabbik jotti li lépp li ñu wàccee ci yow mu bawoo ci sa boroom wa in lam tafal su dee defoo ko nag fa ma ballaghta risalata xamal ne jottili woo ay leetaram ay lam la yónni wallahu yaasimuka min annas yàlla nag moo lay musal ci nit ñi inna allaha la yahdi alqawma alkafirin yàlla day du jubal xeet boo xam ne xeet bu ay yéeféer yu ñàkk gëm seen borom lañu mi ngi noonu ma ko gis nañu ne aaya yi nga xam ne moom lañu jot a jàng ci gannaaw ba yiñ ci mujj démb suñu borom mi ngi wax ay musiba yu rëy yoo xam yoo xam ne ahlul kitaab jaar nañ ca ngir seen diine ji ñu daal di koy jënde àdduna loolu yóbbu leen ci ñuy wax wax yu ñaaw yu jëm ci yàlla jalgati diine yàlla yi rey yonenti yàlla yi suñ borom nag jalla wa ala ci mbaaxam mu ne moo ne day lii lépp bu ñu wëlbati ko woon gëm gannaaw ba daa di ragal yàlla danaa far seeni bakkaar te dugal leen aljanna te it mbokk mbaaxug yàlla ngoog amul kenn ci kaw suuf koo xam ne mën naa def musiba ba nit man koo joxoñ ne kii moom c'est fini yàlla dootu ko baal déedéet nit ki lu mu mën a def su dee am na tub gu sell gu ko yàlla wërsëgal day yàlla dana ko baal donte ne nag dama ne bu ko yàlla wërsëgal bala laa seytaane manee ne la dégg nga nee nañ loo mën a def boo tuubee yàlla baal la na am mbokk jurit boo tuubee yàlla baal la waaye ak tuub yàlla koy jox nit ak a bëri ñi mébétoon tuub mébétoon tuub ba dee ci tuubuñu waaye yonent bi alei salaam nee na inna allaha la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir nit ki fi yëg nekkul ci sukuraat wala mu nekk ci déegu teew goo xam ne moom xamu ne na léegi dee rek fi sës su boobaa su tuubee yàlla bal ko mi ngi noonu muy woo gu muy woo ahlu kitaab ñaareel ba mooy lan moo tax ngeen di jalgati seen diine xanaa du ngir bëgg àdduna suñu borom mu ne fa lillahi al axiratu wal ula àdduna ci loxo yàlla la nekk ay yéen ahlul kitaab xanaa xamu leen ni su ngeen taxawaloon la yàlla wàcce ci tawraat ak injil te la ca jiitu mooy ñu gëm mboole mi yonentam ki ci mujjoon mooy yonent yàlla muhammad ñaareel ba ngeen gëm la nga xam ne moom la ñu wàccee ci yéen muy alquran su ngeen ko defoon day yàlla ubbil leen bunte asamaan yeeg suuf da fatax na alayhim abaabu sama wal ard abaabu samawati wal ard ay da ngeen lekk xéewal yu jóge ci kaw xéewal yu jóge ci suuf te loolu itamit mbokk moom la yàlla mës a dig mboolam ñu nekk ci kaw suuf yeneen ci yàlla nuux la yàlla jëkk yónni fekk seytaane nax na leen ñu daal di jublu ci àdduna jublu ci bokkaale yeneen ci yàlla nuux bi mu ñëwee bokk na lu mu leen wax ay yenn saw xeet istaghfiru rabbakum innahu kaana gaffaara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إيين ساو خير خنا دو أدنى جي نين توب مولن تي جامو يالا توب لين سيني بكار نين دلو تي يالا كون يالا دانا واتي أسمان متول لين تاو يو نورمال ناوي دي نورمال سونو بروم دانا يوكو سين ألال سونو بروم دانا يوكو سيني دوم دانا لين indil ay dex dana leen indil tool yu dul jeex loolu la yàlla digee ñëpp donte ne topp ñu ko ca loolu it borom bi subhanahu wa taala li tax mu koy wax moo di ne ne ñun xeetu yonent bi salallahu alayhi wa sallam gàllawaay ñu xam ne it suñu texe adduna texe allaxira du faye borom bi def la ko neexul waaye suñu borom mu ne walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard amul benn dëkk boo xam ne dañ fexe ba gëm yàlla bañ koo bokkaaleeg dara fexe ba looy yàlla ñu tëral ko fa jaamu yàlla lu dul yàlla mu ne mu ubbi barkay asamaan ak suuf barkay asamaan bokk na la ci gën a kawe mooy taw bi donte na am na yeneen xéewal lu ñu yàlla jox xatta jant bi rek la ci jóge ci énergie solaire yoo xam ne moo ñuy dimbali kenn xamul nu mu toll waaye suñu suuf bokk na la ci suñu maam yi xamoon mooy li ñuy bay nga xam ne dañ koy gis muy meññ ci suuf waaye xoolal tey mbokk li gën a rëy tey lu doomu aadama yi di di di def jëfandikoo mooy lan mooy pétrole pétrole boobu nekk ci mi ngi suñu suuf de maam yi mësuñu koo xam tey adduna bi bu pétrole jóge woon ci adduna bi adduna taxaw le gaz xoolal tey naka lay def ci doo doomu aadama yi lu mu leen jëriñ la nga xam ne moo ciy génne ci or yaag manganèse yaag ay yeneen matières yoo xam ne daan ci mën a defar avion yaag train yaag métro yaag loolee kenn xamul xéewal yi ñu yàlla dëxañal ci suñu biir suuf si kenn xamu ko lu dul yàlla jalla wa ala waaye borom bi nee na lii lépp teewul am na ci ñoom ñi digg doomu waaye la ëpp ci ñoom lañ doon def baaxul te loolu it mbokk da lay jàngal xeeti yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam nim gën a yeneen xeet yi ko jiitu woon bu dee xeeti yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom mu ne am na ci ñoom muxtasid wa minhum saabiqun bil xayraat fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayraat xeeti yenent bi aka caa bëri ñoo xam ne tooñ nañ seen bopp comme ahlul kitaab aka caa bëri muqtasid ñu digg doomu comme ahlul kitaab waaye am nañ lu ahlul kitaab amul mooy saabiqun fil xayraat ñoo xam ne nii li leen yàlla santoon def nañ ko ba def lu bari lu leen yàlla santoon loo baree bari lu leen yàlla santul te li ngay fekk mbokk ci ay nawafil ca xeetu yi nañ ci bi alei salatu wasalaam daa nekk amul woon ci nu jiitu laylatul qadr bi ñuy xenc ci sunu fan yi mujj rek suñuy boroom nee na ku ko taxaw mel na nga ko taxaw junni weer gis nga yàlla waxul junni guddi de dane ah junni weer loolee kon kenn xamul xeetu yeneen bi occasion bi ñu am pour mën a raw allahuma yow julit bi it suñu borom bu diggee lii mbooloo mi bu ca mbooloo mi àndul it yow góorgóorlul suñu borom mu ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib e yow ndawal julit yi nekk ci buntu àdduna xamal ne àdduna gi ngay wuti yàllaa ko moom la lay jëriñ ci loxo yàlla la nekk kon fexeel ragal yàlla na nga ko war a ragala rek suñu borom nee na xat-xat yii la jaaxal danaa la ci génne wërsëg wi nga xamul fu muy jógee danaa la bette wërsëg foo ko foogewul woon lii mbokk moom mooy diplôme bi gën a kawe booy gànnaa yow yow ndawal julit moo gën doctorat moo gën professoria moo gën lépp lay xalaat fexe ba ànd ak ragal yàlla jaamu yàlla moo ko gën a suur moo lay jëriñ àdduna ak alaxira suñu borom yàlla bàyyi loolu daa ji ñëw ne ay yow yeneenti yàlla bi jottali li ma la yónni soo ko deful jottali woo ay lépp li ma la wax jottali ko te it mbokk loolu mooy ndaw tey jii su ma ne woon benn xale jox ko la nga xam ne nii mooy paquetab cent mille mu am dix billets de dix mille da ko demal doxal ba ko Cheikh Ousmane mu dem ba ca yoon ba rocc trois billets dugal ci poche bi ñoo jox Cheikh Ousmane soixante dix mille ndax kii jottali na laa jottaliwul kon it rasul sallallahu alayhi wasallam noonu la yàllaa ko def yonent di jaarale ci moom la yàlla bëgg nit ñi jëfe ko kon moo tax mu ne ko jottali lépp loo ci nëbb rek xamal ne yàgg ñàkk jottali yépp yéen yem te na am mi ngi noonu su ko defee mbokk suñu yeneen ti sallallahu alayhi wasallam julit moom dafay gëm mooy falam yabqa xayran falam yabqa xayrun illa dalla alayhi ummata walam yabqa sharrun illa xazara anha ummata amul lenn loo xam ne nii doomu aadama mën naa koo def jege yàlla lu dul yenent bi jàngale na ko lépp loo xam ne xamoo ko ci tegtal ci jaamu yàlla xamal ne yàlla subhanahu wa taala bëggul ñu ko jaamoo loolu mbokk doomu aadama sa boroomu doomu aadama sax xamoo ko nan ngay xamee sa boroom ba jàpp ne xalaat say xalaat lii daal war naa neex yàlla naa ko def ñoom te mënul def loolu borom xam-xam yi dañ ne man istahsana faqad sharaa koo xam ne rafet lu nga mbir ci dara tëral nga diina ji bees te mooy yaa gën a xam yàlla ak yeneen ci yàlla sa doomu aadama bi ngay woo invité rek mën ngaa am ne xaaral ma invité nuñ koy waxee Bilal Thiam xalaat nag ne day xam naa ne Bilal moom dana war a bëgg damadaa ah Bilal xam naa ne dem invité togg sa damadaa fekk Bilal damadaa rek liy bañ a gis waaw yow yow yow nagam sa moroom nit yow mun loo xam bànnee xam nooy xamee sa borom jalla wa ala looloo tax ku bëgg ngërëmal yàlla doo ko jaare lu dul laat yonent yàlla bi lu yàlla bëgg mu ne yàlla day nii la bëggee naka la ko bëggee yàlla bëgg nañu julli nu mu bëgg ñu julleel ko ko mu ne fajar def leen ñaar tisbaar kaat timis ñett gis ngeen bëgg na koor nu mu bëgg ñu woorale ko ko mu ne weeru koor moom tegale leen ko bu leen ci dog dara ni ngi noonu weer yëpp woor leen ko bu paree nag bu leen neexee naafila aj ji nag defee leen ko nii balligh ma unzila ilayka min rabbi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam jotti ni ne lépp yaay Aïcha ne mu ne bu amoon lu yonent bi nëbb kon koy waaye dina nëbb abasa wa tawalla an jaahu al a'ma yonent bi alayhi salaam toogoog ay notable Quraysh di leen waar Abdullah ibn Ummi Maktum jóge fële silmaxala ak yatam ñëw ya rasulallah lu mu di wàcc ci téerub yàlla bi yonent bi mer ndax occasion bi mu ko bëgg a yàqal yàlla wàcce alxuraan bu ñuy jàng ba ila yawmiddin mi ngi moom mi ngi gis silmaxa bi ñëkkal kanamam wan ko gannaaw te yow li la yàlla sant mooy ñi bëgg a waaru waar leen ki bëgg naa waaru ñii ay saay-saay lañu tax ngay ngay kii nii suñu yaay Aïcha mu ne bu yonent bi doon nëbb dana rëbb dana nëbb wa taxsha naasa wallahu ahaq an taxshaahu yee nga ragal nit ñi de te yàlla gën a yee nga ragal ko te mooy ci qadiya ba amoon ci ki nga xam ne ni mooy Zayd ibn ibnu Harisa dana faras dana fare soxnaam dana fasi soxnaam Zaynab bintu Jahsh yaa ko war a takk loolu diis ci yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ne ko da ngaa ragal critique yi nit ñi yàlla gën a yey ñu ragal ko almuhim mbokk yonent bi alayhi salaam jottali ne lépp loo xam ne nii moom la ko yàlla subhanahu wa taala jottali woon waxal mu jottali ko amma nag yonent boobu ne yàlla jottalil xeet bi suñu borom mu ne ko bul ragal bul tiit danaa la aar ba sa mission jeex te na am mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn xamul ñaati piège la ko yàlla jaarale kenn xamul bokk na say say yahud bani nadir yi nekkoon biir madina ba ñu suñenteeg moom benn pacte ñu jàmmoo ne nag léegi ku ci am problème ne la sa morom dimbali moo am benn julit bu rey ñaari yéeféer yu ñu suñente woon ak pacte ci erreur yonent bi kon war a yóbbu foofu deux cent giléem ñu ne nañ dem suñ mbokk yahudi yi ngir ñu jàppale ñu ci ndax ñoom it bu ñu am problème lañ leen di jàppale bi yonent bi ñëwee ak Abu Bakar ko Omar ñu toog waxtaan ak ñoom ba pare ñu ne ah loolu kay amul problème loolu kay Muhammad ñu ngi koy lijjanti ñu diwoo seen biir na waaw occasion bii day xawma kañ lañ koy amee ci kan mooy doxe gannaaw rek njël benn roche dóor ci bopp bi mu dee benn yoon ñu ñu pare ci bañ demee ba waaje dafa roche ba yéeg yàlla xamal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne bëreet jóg daal di dem ak Aboubacar gannaaw ba woo kilifa yahudi wax leen la nga xam ne mooy musiba ba nga xam ne moom lañ doon def ñu reconnaître ko te la loolu moo waral suratul hashr loolu mu leen génne Madina ak yeneen ak yeneen wallahu yaasimuka min annas firiwul nag ne yeneen ci bi dara du ko dal ah kay doon na jihaad dem nañ damm nañ bëñam ba toj nañ jéem ba sallallahu alayhi wa sallam bal njabar nañ ko sax sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu daawul jeexital ci ar risala la nga xam ne mooy jottali risala bi moom dara mënul tee mu jottali ko borom boobu nag loolu moo wax yonent bi yonent bi da ko yónni ci man yónni ko ci yéen ci yàlla mu la ko jottalil kon naka lay demee moo tax bam dajeeg sahabatul kiram ca aju tàgg tooga lu ëpp cent quarante mille wër ko ba mu leen discours yi discours bu mag ba mu ne fal yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib gannaaw ba it mooy képp ku dégg sama wax ji teewe ko naka jottali ñu ko jotul woon wax sahabatul kiram ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même ba doon aaya ay walaw jumla lu ngeen xam ci man ci alquran ci sunna jottali leen ko sahabatul kiram yal na yàlla fayal ñu leen te la ñu tasaaroo ñee jaar biir Asie ñee jëm Amérique Afrique ñii jaar côté côté Europe Rome fu nañu tasaare fi diine yàlla ji ba tey sahaaba yi waroon yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo doon xool seen siira fan nañ leen suul dañoo tasaaroo seen ba mi leen ngi tasaaroo dara yi waralu ko woon ak jihaad fi sabilillah ak jottali kaddug yàlla ba tax tey jii ñun au quat- ñu quatorze siècle dox suñu diggante ak yonent yàlla bi six mille kilomètres dox suñu diggante ak yonent yàlla bi mu nekkoon ab arab ñun ñu nekk ay nit ñu ñuul tey ñu nekk fii di wax la ilaha illallah muhammad rasulullah mbokk liggéeyu saaba la loolu liggéeyu sahabatul kiram la yàlla moo leen def wasatan baynana wa bayna rasul sallallahu alayhi wa sallam ni ñu koy waxee di ko répété daiman ñoom la ñu war a gën a bëgg gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ñu war a gën a fonk gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku màggal ab sëriñ màggal goo xam ne dem na nga yemele ko saxaaba jum nga am naa nga jàpp ne moo gën saxaaba yi nag loolu moom kenn xamul lu ñu koy mën a tuddee yàlla na yàlla fayal ñu leen wallahu alam cheikh ousmane
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون barakallahu fiikum suñu borom mu ni qul ya ahlal kitab ey yéen neel yéen ñi nga xam ne da ngeen jotoon téere lastum ala shay'in nekku leen ci dara hatta tuqiimu tawrata wal injil ba baa ngeen di taxawal lii di tawrat ak injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum ak li ñu wàcce jëme ci yéen mu ba wàcc seen boroom wala yazidanna kasiran minhum dana dolli lu bari ci ñoom ma unzila ilayka min rabbik li ñu wàcce mu jëme ci yow jóge ci sa boroom m- tughyanan wa kufra la nga xam ne moom mooy jiggi dayo ak la nga xam ne mooy ak kéeféer fala ta'sa ala alqawmi alkafirin bul nekk di tiis mukk ci kaw xeet boo xam ne dañoo weddi doon ay yéeféer inna allazina amanu ña nga xam ne day dañoo gëm muy dilit ñi gëm yonent yàlla muhammad wallazina haadu ak ña nga xam ne day dañ ne ay yahud lañu wassaabi'uun borom xam-xam yi am nañ ci juyoo am na lu ci gën a logique mooy ñoom dañoo amoon tawxid ba ibrahima indi woon waaye amuñoon pratique u diine wan nasara ak ña nga xam ne ñoom ñooy nasaraan yi di chrétiens yi man amana billahi wal yawmil axir ku ci gëm yàlla gëm bis bu mujj ba day wa amila saliha daal di jëf-jëf yu yiw fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ku mel noonu day tiitaange du ko ñeel aw tiisit du ko ñeel laqad axasna mithaqa bani israil ñun day ñoo jëloon kolle rek bani israil wa arsalna ilayhim rusula yónni jëme ci ñoom ay yonent kullama jaahum rasul heure bu leen dikkalee ab yonent bima la tahwa anfusuhum ci loo xam ne nekkul di bànneexal seen bakkan ya fariqan kazzabu benn kuréel ba ñu rey ñu weddi leen wa fariqan yaqtuluun beneen kuréel ba ñu rey leen mi ngi noonu mbokk gis nañu ci bind bi ñu génn te mooy yonent bi alayhi salaam mun a jottali leen ma mbokk tey suñu boroom indi na la nga xam ne mooy jottalikaay yi suñu maam yi amul woon naam bokk nañu ca jiitu mooy informaticien yi nga xam ni ñooy taxawu site yi nga xam ni benn waxtaan rek mën nga ko dugal ci benn site ay millions jël ko tey jii dars yi ñuy def nii en direct am na ñu ne mën a nekk fu ne ci àdduna bi di ko seetaan loolee ngëneel bu rëy la su ko defee ñooñu yal na yàlla fay leen waaye nag ak yomb teyit sa portable bi ñu yàlla nattoo loo xam ne suñu borom lum ñu defal ci ci ci xéewal rek dafa bëgg ñu jëriñoo ko donte ne seytaane moo koy wëlbati def ko musiba waaye cay yow ndawal julit lan nga mën a liggéey ci telegram lan nga mën a liggéey ci whatsapp instagram lan nga mën a liggéey ci facebook lan nga mën a liggéey ci xarala yooyu nga xam ne daa bees nga xam ne mën nga ciy dugal ay waxtaan mu jëm ci ay téeméeri junni nit nga la waay fexeel profito ci yow it di ci tasaare lépp loo xam ne nii ay day woote jëme ci yàlla yàlla xam fan la ci doomu aadama di jëme wallahi yàlla ko xam ak bëri ay témoignages yu ñuy jot yu jógee un peu partout dans le monde ñoo xamee ne nii kenn mësul dajeeg ñoom di wax ak ñoom wàllu sunna waaye gëstu bañ doon gëstu ci internet bi rek lan dajeeg ay waxtaan xamuñu sax ku dugal waxtaan yi xamuñu sax ki wax ku mu doon waaye yàlla subhanahu wa taala def ñu déglu ko ba lépp lu lëntoon seen bopp mujj leer loolee kon ngeen bàyyi ko xel bu baax donte ne ne darul leen wax ne lépp loo xam ne lu bon la bu ko tuxal loolu fexeel ba bu ko tuxal xatta bu dee ne affaire diin la sax di wax ay shirk ak musiba yow fexeel bul tuxal loolu xanaa boo ko doon tuxal da nga koy tuxal jéemi ci borom xam-xam boo xam ne moom da cay def appréciation xam nu mu koy dajjee waaye ngir rek nit ki wax ay njaaxum nga la xool déglu ki li mu wax rek déglu ki li mu wax rek mbokk déglu ay njaaxum day lëndëmal sa xol yow ndawal julit fexeel ba sa sa sa sa yoon mooy fexeel ba di déglu lu baax rek di topp lu baax lu bon moom teg ko fële gis ngeen ndax lu bon loolu ngay dégg yow xam nga ne baaxul mais la fekk nga koy dégg rek baaxul bu yàggee day lay lëndëmal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma suñu bind buñ mujj jël borom bi subhanahu wa taala mu ne ay yéen chrétiens yi ay yéen juif yi xam leen ne day nii ngeen jàpp nag jaamu yàlla la du dara ci yàlla zéro la leen di jural tant que topp leen tawraat ak injil kon ñoom topp ñu tawraat topp ñu injil ndax boo demee tawraat ak injil Moussa waxoon na leen yonent yàlla Muhammad mi ngi ñëw injil waxoon na leen yonent yàlla Muhammad mi ngi ñëw kon ku weddi yonent yàlla Muhammad avant ngay weddi alquran weddi nga tawraat weddi nga injil gannaaw bi suñu borom mu ne su ngeen taxawalee tawraat ak injil ak alquran day da ngay gis ne tant que defu leen ko nekku leen ci dara borom bi nag mu ne naka jekk ñi ngi woon ci caay-caay waaye bi alxuraan ñëwee da leen yokku ak bewu yokku leen kéeféer loolu kon mu yéen na yow yeneen ci yàlla muhammad du ne lii ngi indi lañ comprendreul déedéet la yàlla jëkk wàcc ci ñoom loolu lañu weddi avant ñu weddi alxuraan yow bul tiisu ca xeetu kéeféer te it mbokk loolu it nga gànnaayoo ko yàlla mën na yàlla baaxe na ñu la ëpp ci ñun dey seeni waajur ay julit lañu seeni frère ay julit lañu bal am na ñoo xam ne ci ñun xamuñu sax mbokk yee féer loolu yàlla na yàlla def ko suñu dabat bi ila yumi diin waaye it nit mën nga am sa xarit bu la jege lool nga bëggoon lool mu du tuub ci lislaam yàlla defut loolu wala sa mbokk sa baay sa doom koo woo ba sonn ci lislaam mu féttarlu it yow bu mu la yàqal say nelaw bu mu la yàqal say nelaw yàlla moo dogal loolu yàlla moo dogal loolu moom moo xam problème am la bu duggee ci diina ji moo xam bu ci duggul moo xam fala tasa alal qawmin kafirin ndax min yonent bi alayhi salatu wasalaam da koo métti woon ay jege ñaaleem yi nga xam ne fu na jaar na fa ak ñoom nar a dem sawara rek ci kanamam nii kan moo ci jiitu woon bàyyam bi abi talib nga xam ne yaroon na ko fonk ko nu raw ni mu fonke woon ay doomam aar ko waa makk jóg dal ci kawam pendant presque onze ans mu taxaw aar ko bay dee ci kaw lalam ay bàyyi waxal laa ilaha illallah rek loolu texeel la waaye teewul ci kéefir la dee suñu borom mu ne ko nag laallaka baaqiun nafsaka allah yakunu muminin xaw ngaa rey sa bopp ngir xalaat nit ñi nar a dee la ak kéefir waaye loolu bu mu la ci fekk fala tasal qawmil kafirin ku gëm gëm ku gëmut na dem fu ko fu mu xam borom boobu nag subhanahu wa taala ci mbaaxam ñi nga xam ne dañoo nekkoon ay yahud mosuñoo dégg yàlla yónni na yonent yàlla muhammad te ñoom day gëmoon nañu tawraat wéetal yàlla ñoonu da ngay gis ne àddina lañ jëm chrétiens yi mel noonu àddina lañ jëm ba suñ jamonoy tey bépp chrétien boo xam ne gëm na yàlla gëm injil bokkaalewul ak yàlla mi ngi noonu xam boo demee ci chrétien am na ñoo xam ne sax gëmuñu ay jésus dañ koo daaj am na ñoo xam ne gëmuñu ne jésus doomu yàlla la donte ne diina ja bëri na njaxase lool waaye nag ña ca am chance ba ñoom wéetal nañ yàlla jalla wa ala ku ci dee àddina nga jëm te loolu mbokk ba sun jamono tey ji ak bari ñoo xam ne xamuñu luy lislaam seydul xutbu yàlla na ko yàlla yërëm nee na demoon na benn daje en Allemagne nee na biñ ñëwee ñu am daje bu mag kilifa gu mag gu fa nekkoon daal di koy woo ne leen kii waaw kilifa la moom mi ngi bokk ci diini lislaam islaam mooy ñoom seen dañu am benn seen njiit mooy muhammad bi mu ñëwee fekk seen xeet di jaamu ñetti téeméeri yàlla dafa xool yàlla bi ci gën a rëy mu dajale leen ci yàlla boobee mi ngi noonu am na ñoo xam ne li leen gëmloo mooy julit ñi kaaba gi la ñuy gaamu l'islam mooy ñiy jaamu kaaba gi ndax li leen gis ñu wër ci kaaba gi ki nga xam ne mooy docteur Henri fii bi nekk Arabie Saoudite nettali naa leen fii ay benn bis nee na dafa dem Afrique du Sud bi mu ñëwee ci hôtel bi valet bi servir ko mu dem ba pare mu woo ko ne ko waa yow ndax xam nga luy l'islam mu ne ko l'islam mu ne noo xamul luy l'islam de mu ne ko waa l'islam loo foog moom la nee na mu l'islam l'islam mais yaakaar naa markooto la ah yaa ngi dégg dégg musul dégg sax turu l'islam musu ko dégg mu jàpp ne l'islam markooto la comme ni ngay dégg ay nissan peugeot dafa noonu bokk mel ni ci xamul xamul luy diine moo tax suñu borom nan la waxoon wa man yakfuru bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu yahudi yeeg nasaraan ku ci weddi yonent yàlla bi ay bihi moom nga dégg ko xam mbiram weddi ko moom la yonent bi alayhi salaam mu ne laa yasma'u bi mi ngi doon ahadun min hadhihi al milla suba lam yu'min bi illa kaana min ahli naar du chrétien du juif koo xam ne dégg na ma xam ne ne man yàlla yónni na ma leeral nañ ko yonent yàlla muhammad yàlla ko yónni ba pare mu weddi yonent yàlla muhammad loolu sa war a jëm loolee ñu bàyyi ci xel bu baax looloo tax ñii ñi dëkkal fii di chrétien yi ngallaawaay ñi ngi leen di laaj biir xam ngeen yonent yàlla muhammad de yéen jàkk yaa ngi nii nodd yaa ngi nii xam ngeen bu baax ngallaawaay def leen li seen maam yi defoon tey jii demal Casamance demal foo bëri ñu bëri jullit ña fay nekk laa ilaha illallah ay chrétien la ñu woon seen mbokk yi ñoo leen woo ci lislaam ànd ak ñoom yoonu aljanna loolee ngeen bàyyi ko xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne kon mi ngi noonu képp koo xam ne nii yaa ngi deeyale tawxid doo am looy ragal ca la nekk ca kanam doo am looy tiis lu nekk sa gannaaw borom bi delluwaat ci xeetu bi gën a doy waar ci lim bind yépp muy bani israil ñoo gën a dëgër bopp ci lim bind mi ngi noonu mu ne jëloon na seen kóllëre yónni ci ñoom ay yonent mboolem yonent yi ñëw gannaaw yanquub alayhi salaam ci ñoom la ko yàlla yónni gannaaw ba nga xam ni jiitu ibrahim yàlla daana nee na bépp xeet yónni na fa yonent bi yonent gi ñëwee bi ibrahima ñëwee mu jël yonent gi yemele ko ci moom bi bi yanquba ñëwee mu jël yonent bi tënk ko ci ay doomam mi bani israil diggante yanquba ba isa ibn maryam ñépp ay doomam lañu suñu borom nag nee na heure bu leen yonent dikkalee ci loo xam ne du seen bànneexu bakkan ña am chance mooy weddi nañ leen waaye ñëpp ñoom dañ leen far rek rey benn yoon ñoo rey yaxya ñoo rey zakariya ñoo rey bëggoon rey yonent yàlla isa ak ay yonent bal dañ ne bani israil rey nañ lu ëpp ñetti téeméeri yonent rey nañu leen waaw koo xam ne nag yonent ba ko yàlla yónni mu bokk ak moom weddi na ko ba rey ko kooku ndax mën naa gëmal keneen waaw loolu mi ngi noonu yal na yàlla musal nit ñu jaar fan jaar ndax suñu borom mu ne bi ma laa tahwa anfusuhum looloo tax ba ngal la way julit moytul sa diine nekk sa bànneexu bakkan li ëpp tey ci doomu aadama yi seen bànneexu bakkan lan toog fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwaahum li ëpp ci ni ñuy jaamoo yàlla léegi mooy bànneexu bakkan amma sharia ba yàlla tëraloon lu néew ci doomu aadama yi ñoo ca tege yàlla na yàlla boole ñu ca
حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا فيمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne wa xasibu an la takuna fitna ñoom day jortoon nañu ne loolu ñu def du leen jural benn problème benn fitna fa amu noonu lañu gumba gumbalu wa sammu tëx tëxlu summa taaba allahu alayhim gannaaw ba yàlla jéggal leen summa amu gannaaw ba ñu gumba gumbalu wa sammu kasiru minhum tëx tëxlu la bari ci ñoom wallahu basirun bima ya'malun yàlla day muy aji gis ñeel la ñuy jëfee laqad kafara allazina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam weddi ne day ñanaan kii di yàlla mooy masih ibnu maryam rek wa qaala almasihu ya bani israil doonte ne masih waxoon na ne ey yéen bani israil ubudu llaha rabbi wa rabbakum jaamu leen yàlla di sama boroom di seen boroom mi sama boroom di seen boroom innahu man yushrik billah xam leen ne day képp ko weddi yàlla faqad harrama allahu alayhi aljanna ku mel noonu day yàlla araamal la ci moom ajjana wa ma'waahu naar wàccuwaayam mooy sawara wa ma lizalimina min ansaar du ñeel tooñkat yi kenn ku leen di dimbali laqad kafara allazina qaalu inna allaha salisu salaasa weddi ne day ña nga xam ne dañ naan yàlla mooy ñetteelu ñetti ña wa ma min ilahin illa ilahun wahid donte ne day amul kenn ku ñu yeyoo ñu koy jaamu lu dul yàlla benn ba kese wa in lam yantahu amma yaquluun tey bu ñu bàyyiwul ñeel wax yu bon yi ñuy wax la yamassanna lazina kafaru dana laal ña nga xam ne dañooy weddi minhum azabun alim ña weddi ca ñoom li di mbugal mu tar mi ngi noonu mbokk gis nañu ne ñi nga xam ne nii ñooy bani israil fitna bu rëy indi nañ ko ci seen diine ba pare jàpp ne dara du leen ca fekk ca loolu itamit gis nañu ne ak a bëri ci julit ñi ñoo xam ne dañuy dajeeg seeni mbooloo di sosol yàlla di sosol yonent yàlla ay musiba yoo xam ne nii kenn xamul ni mu grave waaye yàlla di leen ca fekk seeni xéewal di gën a yokk seeni mbooloo di gën a yokk ñu jàpp ne kon lii duñ ca am benn problème gis ngeen borom bi subhanahu wa taala mu ne doonte ne ne jëf ju bon joojee baal naa leen ko teewul lu leen yàlla baarit ñu daal di sos leneen lu gën a bon loolee borom bi nag mu ne baax na yàlla moo gën a xam la nga xamee ne nii ña nga koy nekk di ko jëfe mbokk borom bi subhanahu wa taala mu ne bokkoon na ci mbon goo xamee ne nii doomu aadama yegg na fa mooy dema dema dem ba xool jaamu bu yàlla ne kii mooy yàlla te loolu mbokk mooy njuumte bi nga xam ne ñi di chrétiens yi def nañ ko mooy yàlla mooy feeñu ci isa ibnu maryam muy la nga xam ne ni mooy la trinité boobu te mooy yàlla le père le fils ak le saint esprit dañuy wax ne ñoom benn lañu mit la boo xamee ni nii benn lañu yàlla mooy isa isa mooy yàlla yàlla moo feeñ boppam ci isa ay kon yàlla moo ñëw joxe boppam ñu rey ko ci croix ba loolu seeni wax la loo xam ne nii mbokk boo leen ko laajoon loolu nu mën a nekk ñu ne loolu mit la mit la mooy mënuñu ko expliquer mais mit la yàlla mooy mooy mooy jibril jibril mooy isa le père le fils ak le saint esprit am ñeneen ñoo xam ne dañu ne ñetti yàlla ka ya am yàlla mooy un des trois kenn la ci ñetti yàlla yàlla la isa yàlla la mi ngi noonu doomu yàlla la yàlla def ko yàlla maryaama it yàlla la mi ngi noonu maryaama yàlla la kon yowmal qiyaama moom la suñu borom di wax ci luñ nar a jàng ci jeexatul saar bi waaw isa yow yaa waxoon chrétiens yi jël leen ma ak sama yaay ngeen def ma ay yàlla gis ngeen loolu kon ñu ne yàlla kenn la ci ñett yi borom bi subhanahu wa taala nag ne moo ne loolu ñuy wax day kii nga xam ne nii moom mooy isa ibnu maryam lan la leen waxoon ay yéen bani israil jaamu leen yàllay kese yàlla mooy sama borom di seen borom képp ku weddi yàlla yàlla araamal na ci moom sawara yàlla araamal na ci moom ajjana te wàccuwaayam mooy sawara ci kenn du ko fa dimbali te mbokk loolu rek ay tax yàlla araamal ci yow sawara yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne doomu aadama bi day bu weetile yàlla dana dem aljanna même bu njaaloo même bu sàccoo abu zar ne ko wa in zana wa in saraka mu ne ko wa in zana wa in saraka même bu njaaloo bu sàcci abu bakar ne ko mais abu zar même bu dee njaaloo na sàcc na yonent bi ne ko wo même bu njaaloo bu sàccee wala rëxima an fu abu zar même bu dee abu zar mënu ko comprendre na am mbokk di leen suñu borom yàlla ci mbaaxam képp koo xam ne nii bi ngay dee yaa ngi di yàlla wéetaale yàlla tawxid yàlla dina la mos a dugal aljanna yàlla dina la mos a dugal aljanna mi ngi noonu amma képp koo xam ne bi ngay dee dee yàlla tawxid yàlla araamal na ci yow aljanna doo dugg aljanna mukk ak loo mënoon a def ci lu baax doo dugg aljanna loolee di mbir moo xam ni dañ ko war a bàyyi xel xamante ne ne loolu ñu wax ni yàlla dana ko dugal aljanna mbokk suñu digg ak àjjana étape bi fi nekk na ak a bëri yow mi njaalookat bi yow sàcc bi suñu diggante ak àjjana étape bi fi nekk bëri na de sakaratul mawt mi ngi lay xaar bu la yàlla mbugalul ci àdduna gi am na bakkaar yu bëri fii la la yàlla commencé dugal ay mbugal mi nga noonu ak bëri ay naan ko to sangara naan ko to sangara bi gënoon a jege suñu jàkk ji bilal cam boo ko fàttali ko nga xam ne mu gënoon a suifi cancer gorge moo ko mujj rey bu metti ba mu dee daawul teg tànkam ci jàkk ji morgue bi la ñu ko indil loolu mi ngi noonu waxuñu nag ne yàlla da koy mbugal damay joxe rek misaal gannaaw loolu mbokk am na état bu sakaratul mawt la fa jàmm bi jaar bu yàlla gërëmul yàlla rek koo ko xam am na état bu bàmmeel tey jii ñi fekkoon bi alxuraan ak wàcc def nañ 14 siècle ci bàmmeel ña ci jaarul loolu fa neex yàlla ñu ngi leen di mbugal booba ba léegi am na état bu yowmal qiyaama 50 mille ans lay duré loolee kon bul dégg mukk koy wax ne ku deeyaale tawxid àddina la jëm nga naa kon garawul am naa garanti man du ma bokkaale ak yàlla dara la wallahi mbokk julli suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni kon weddina képp ku naan yàlla muy diw weddina képp ku naan nuñ koy waxee yàlla subhanahu wa taala mooy kenn ci ñett comme niñ koy defee day gis table publicitaire yu mag yu ñuy def ci beddu Dakar ñu naan diw jaamu sëñ diw yaa ngi dégg man diw man jaamu diw la du ma du ma jaamu keneen ko dul yàlla ñu koy wax ci rajo yi muy feeñ ba ko dul loolee gis nañu ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne suñu bàyyiwul li ñuy wax te mbokk yàlla baax ñu ngi noonu suñu bàyyiwul li ñuy wax te mooy buñ ko bàyyee rek yàlla baal la te waaye ñuy wax musiba suñu réew yàlla leen yàlla wërsëgal ñu bàyyi ko waay suñu bàyyee rek yàlla baal leen suñu borom bi subhanahu wa taala nag ne suñu bàyyiwul ba dee yàlla ko day mbugal moo tar mi ngi leen di xaar mi ngi noonu Cheikh Ousmane
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم منظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم jazakallahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ni afala yatuubuuna ila allah ama ndax nit ñi duñu tuub dellu ci yàlla wa yastaghfiruuna ca jéggulu seen boroom wallahu ghafurun rahim ca yàlla day kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la mal masiixu bnu maryam illa rasul isa doomi maryaama ja du dara lu dul yonenti kese qad xalat min qablihi rusul romboon na jiitu ko ay yonent wa ummuhu siddiqa yaayam ja nekkoon na ku dëggu kaana yaakulaani taam ñoom ñaar ñépp dañ daan lekk ñam unzur kayfa nubayyinu lahum al ayat xoolal ni ñu leen di leeral ñeel leen aaya yi summa nzur anna yufakuun waaye gannaaw ba xoolal ana nan la ñu leen juutale ay dëpp leen qul afa tacbuduuna min dunillah neel ama ndax da ngeen di jaamu gannaaw yàlla maa laa yamliku lakum darran wala nafa loo xam ne moomul ñeel leen lor moomul ñeel leen njëriñ wallahu huwa samiu alim te yàlla mooy aji dégg ji aji xam lépp mi ngi noonu mbokk suñu boroom ngëri jaam yi subhanahu wa taala mucc ci mbugalam yoon bu ne woona leen fa ngiree ñu daal di tuub tuub leen ak lu ngeen mën a def ci lu bon soo dellu woon suratul buruj mu ngi ñuy nettali ñoo xam ne dañoo dajale ay jullit góor ak jigéen mag ak ndaw taal taal bu yaatu dugal leen ca lakk leen te ñoom ñëpp suñu borom mu ne moo ne day amuñu lu ñu leen doon mbugale illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid gëm yàlla rek a tax ñu lakk leen waaye cey inna alladina fatanu almuminina walmuminat summa lam yatuubu cey ñii bu ñu tuubul loolu muy wane lan mooy bu ñu tuubee yàlla baal leen kon awaay yee nit yow ak loo mën a dem ci bakkaar afala yatuubuun ndax yéen du ngeen tuub ca mbokk tuub mi ngi noonu donte ne am na ñaari façon am na tuub goo xam ne wareef la mooy heure boo yégee ne yaa ngi ci bakkaar wareef la nga tuub dellu ci yàlla mu am nag tuub goo xam ne nii tuub gu ñuy sopp la ca mbokk loolu la yonent bi alayhi salaam mel woon daana wax ay yéen nit ñi bari leen ak tuub inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin mi'ata marra man day amul bis bu may xëy lu dul danaa jéggalu yàlla tuub dellu ci moom lu ëpp téeméeri yoon gis ngeen lu ëpp téeméeri yoon rabbi ighfir li wa tub alayya bal abdullah ibnu omar radiyallahu anhu nee na daanañ toog yonent bi alayhi salaam ci jataay su dee da ngaa nekk di compter li nga dégg yonent bi daa nga dégg yonent bi di wax rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim yàlla yal nag ma nangul yal nag ma jéggal nangu sab tuub yow yaay kii sax di nangu tuubi jaam yi yow yaay yërëm jaam yi nee na lu mu bon bon da nga dégg yonent bi wax ko lépp téeméer yoon ci jataay loolu it mbokk baril leen ko heure boo yégee def nga bakkaar sa lamiñ bi tarxis na sa bët yi tarxis na def nga lu wóota def tuubal tuub gu sell dellu ci yàlla soo tuubee mu baal la waaye gannaaw loolu it sa làmmiñ bi nga la way bari la lool di wax astaghfirullah ci la gën a gàtt astaghfirullah ci la gën a gàtt rabbi ighfir li wa tub alayya yàlla yal na ma jéggal nangul sama tuub loolee noonu la demee ba yonente bi alayhi salaam jox ñu ci ay façon nee na ki nga xam ne daf ne astaghfirullah astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi nee na ko mel nii bakkaar ba mu defoon lu mu rëy rëy même bu dawoon bi su xeex yàlla baal ko mi ngi noonu astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi daana waxit ne la gën li ngeen di tuube ci yàlla la gën la ngeen di jéggaloo yàlla mooy allahuma anta rabbi la ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت أي يلا يو يا اسم بروم أمول كنك يو نكوي جامو كدول يو يو يا ما بند يا ما بند تمن سب جام لا ميغي نونو maa ngi nekk ci li ma diggante ak yow ak la nga xame ne nii sama kemtalal kàttan yàlla day nangu naa mboolem luy xéewal ci man ci yow la jóge nangu naa it ku tooñ laa sama bopp ay yàlla yàlla nag ma jéggal kenn du jéggale bàkkaar ku dul yow yeneen ci bari sam nee ne lii mooy lii gën ci lu ñuy jégguloo yàlla waaye la ca gën a gàtt mooy astaghfirullah afala yatubuuna ila allah wa yastaghfiruuna wallahu ghafurur rahim te yàlla koy jéggale la ku yërëmaate la borom bi dellu soit ci almasih almasih ibnu mariam mbokk li tax ñu tudde ko masih lu bëri ci borom xam-xam yi mooy dañu mi ngi jóge ci masaha lu la mën a dal ci feebar kii gaana woon ba ay baaraamam dagga toos kii gumba woon kii cancer woon kii lu mu mën a doon dalay laal rek ngi wér ci saasi loolu mooy mu'jiza bi ko yàlla joxoon muy wane ne kii yonenti yàlla la comme yonenti yàlla Moussa gis ngeen ne ko yàlla joxoon ci yat baag ila axiri almasih doomi Mariam jooju suñu borom mu ne doo dara lu dul ay yonenti kese ay yonenti jiitu woon nañ ko keroog mbokk aay yu mel nii la yàlla wàcce woon ci su yonent yàlla muhammad ngir bañ àdduna yàgg ba ni chrétiens yi def isa jullit ñi def ko yonent yàlla muhammad waxoon na sahaaba yi keroog gannaaw ghazwatu uhud bi sahaaba yi jàpp ne yonent bi faatu na seytaane tasaare ko ñu ne rëy nañ muhammad ñu bëri ci ñoom daw saalit suñ borom mu ne waaw wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum muhammad du dara lu dul yonent ay yonent jiitu woon nañ ko waaye léegi buñ ko reyee wala mu dee nag du ngeen di def da ngeen di bàyyi diine yàlla ci ndax diine ji muhammad moo ko moom diine ji diine yàlla la muhammad yonent rek la woon moo tax mbokk aaye bii la abubakarin saddiq yal na yàlla fayal ñu ko te rek ba yonent bi faatoo dëgg-dëgg faatoo sahaaba yépp saalit te la taxaw ca ko min barba daa da leen hee yéen sahabatul kiram xam leen ne day wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul yonente la woon léegi dee na képp koo xam ne moom nga doon jaamu lu la neex defal amma ku doon jaamu yàlla fa inna allaha hayyun la yamut yàlla moom du dee mi ngi noonu ci ñun yàlla la ñuy jaamu jaamuwuñ muhammad te mbokk moo ko gënoon a jege radiyallahu anhu kon kooku mooy rasulullah isa ibnu maryam bi nga xam ne julit bu ko gëmul yéeféer nga julit bu ko gëmul ak yéeféer nga dañuy fàttali ko benn labbe boo xam ne dafa tuub mu ne moom dara taxu koo tuub lu dul bi mu déggee alquran daf ne xaaral ma xool alquran jàppoon ne alquran doo ci gis lu dul muhammad ak xadija ak ay zeynab ak ay nangam waaye nee na bi ma liiree alquran li ma ci gis ci turu mariama kenn xamul nu ma toll ba am ci saar buñ jagleel mariama li ma ci gis ci isa ni ko yàlla di tagge injil tagge wu ko noonu ca lay xam ne kon lii ci yàlla la jóge loolu ko tuub la dugg ci lislaam loolu tax julit bi dafay ni mu gëmee yonent yàlla muhammad noonu la gëmee yonent yàlla isa différence bi rek mooy ni muy jaamoo yàlla mooy na ko yonent yàlla muhammad jàngalee mi ngi noonu waaye bu dee gëm gi ne ñaar ay yonent lañu ni nga gëmee muhammad noonu nga gëmee isa muusa luut ila axiri ba yonent yi jeex borom bi it ne tagg yaayam ja te mu ne bokk nag li ci gën a yéem mooy mariama lañ ko tagge te benn soxna yonent turam ñëwul ci alquran gis ngeen yaayu yonent bi turam ñëwul ci alquran baayu yonent bi turam ñëwul ci alquran gis ngeen mu ne yaayam ja di mariam siddiqa la woon mbokk siddiqa mooy saddiq mooy ki dëggal lépp lu yàlla wax ki dëggal lépp lu yàlla wax kenn rek moo ko tiim muy mooy annabi xeet bi ka nga xam ne moom lañ ko dàkkantele woon muy abubakar donte ne sahabatul kiram la ëppal ñu ko wër mooy ñoom as-siddiqun wa siddiquna inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum waaye kañ ka dàkkaloon abubakar as-siddiq mooy ko dëggal lépp loo xam ne yàlla wax na ko ko yàlla na yàlla boo lañ min as-siddiqin suñu borom yàlla mu ne ñoom la yàlla xéewalal ndax kat yàlla koy xéewal doomu aadama de mu ne képp ko jëf lu baax فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ab liste la bu yàlla di tànn di quatre catégories yonent yi siddiqin yi shuhada ak salihin yi ñooñu yàlla moo leen baaxee moom ngay ñaan yàlla di sept fois par jour ihdina sirat al mustaqim sirat allazina anamta alayhim naa muy benn waaye yéen chrétiens yi ngeen ne yow isa ak yaayam ay yàlla lañ mu ne waaw borom bi ne xanaa xamu leen dañ doon lekk ñam waaw gars yi koo xamee ni nii da ngaa soxla lekk ak naan pour taxaw ndax kooku yàlla nga déedéet te mbokk mi ngi noonu de gannaaw ba lekk ñam sëñ bi ab caameen bu jël maafeem ak cereem ak dóor ba biir bi na fàcc topp ko fii ak ñetti fan rek dana dugg foo xam ne yàlla du fa dugg am déet loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am na benn yenn jàng xale yi jànke di xam ngeen ko ñu ko wax màcc kiriku nee na ñun bi labbe yi daan ñëw ci ñun ci ay beneek yu demee noonu nee na ñun labbe yi bu ñu leen daan gis dañ leen daan jàpp comme yàlla daaw ñu gis ñu lekk daaw ñu gis ñu naan ni ñuy defee ak seen croix yi dañ leen daan yéem nee na benn bis nag mu am benn labbe bu ñëw ñu am waroon dem benn village ñu boobu am ñu ay oto dañ koy defal benn genre comme pliant rek teg ko ci di ko yóbbu nee na bi ñu demee ba ci yoon bi mu ne wàcce leen ma nee na ñu wàcce ko nee na ma gis ko muy dem nee na ma ñet ma ma làqatu topp dugg ci ñax gi rek di ko xool di ko xool ba mu dem ba ci ba ci benn taatu garab gestu gestu gisu kenn rek moom sutaan bi daal di wax commencé defaru ma ne bisimilah jàpp ñii ñoom ñoo yóbbu kat gis ngeen waaye bokk lu mel noonu la ñuy gis mooy mit bi ñuy def ci sëriñ si tey sëñ Thiam fu ñu ko wonee ma nga sol grand bu kilométrique jaagar jaagar duñ ko wone mukk fu muy lekkee waaye mbokk amul ñaari fan yu ne dellu suñu grand bu yow dugg ci ruq boo xam ne boo ko fa fekkoon xam ne kii du yàlla mbokk yàlla rek a yàlla suñ borom mu ne kaana yaakulaani te am muy benn dañ daan soxla lekk pour résister koo xam ne boo lekkul naanul daanu ci suuf doo yàlla koo xam ne da ngay am ruq boo xam ne da nga fay dugg su meeku di am looy def kooku doo yàlla moo tax suñ borom comme junj doy na borom xel mu ne rek daanañ lekk ñam yem foofu gis ngeen borom bi mu ne nag xoolal ni may leerale samay aaya teewul ba tey ñi ngi dëpp di jaamu keneen ku dul yàlla borom bi nag na waaw ndax da ngeen di jaamu keneen ku dul yàlla koo xam ne moomu lu leen teggil leen lor mbokk yàlla rek am kattan teggi lor ak bari koo xam ne jàpp ne ne ab sëriñam lu ne mën na ko ci mi ngay feebar yoo xam ne dina sëñ bi teggi ko léeg-léeg mu dajeeg sëñ bi hôpital léeg-léeg mu dégg ñu ne sëñ bi ñu ngi ko évacué ci yéeféer ya kon teggi lor yàllaa ko man gannaaw ba it ñod di njëriñ yàllaa ko man donte ne seytaane dugal na seen bopp ne mboolem xéwal yi nekk ci yéen ci sëñ bi la jóge loolu mbokk ak njuumte la teggi lor ak ñod di njëriñ yàlla rek moo ko man te yàlla boobu rek mooy dégg mooy mooy mooy xam suñu borom mu ne ñi ngi allazina tad'una min duni la la yasma'u du'aakum walaw sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'ukum mislu xabir suñu borom mu ne keneen koo woo ci du yàlla dégglu woote bi wallahi lazi la ilaha illa huwa sab oti di waaju kuppe nga naan ya rasulullah rasulullah dégglu de ya ibrahim wallahi dégglu la mi nga noonu inspecteur sàmm xam naa ñëwul tey am ñëw na inspecteur naam mi ngi ci biir am na benn waay bu fi nekkoon bu ñuy wax Mawad di yéen xam ngeen ko de ancien entraîneur dañ dafa ànd ak seen benn waay ñu daw ba àllub kaañ rek pënu oto bi ne teel oto bi naan kalang kalang waa ji yi mu àndal yaa Cheikh Thiam yaa Cheikh Thiam bu la koy crampon da ko crampon ta la wax Cheikh Thiam ne peut rien contre bu la ko ngi dawa dafa nag ngoyal bu baax laa Cheikh Thiam bu la ci di ci lii dara ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu suñu borom mu ne dégguñu woote bi mi ngi noonu dégguñu ko te borom mu ne buñ ko déggoon mënuñu ci dara amma su borom yàlla huwa samia moom mooy dégg lépp te mooy alim li nga bëgg mu mucc ci xam na ko xam ne nu mu la ciy musali li nga bëgg muy sa njëriñ xam na ko xam ne lu mu ciy musali waaw nan nga fi bàyyee yàlla mi nga xam ne moo dégg lépp xam lépp di woo koo xam ne nii déggul xamul mënul ci bu ko déggoo nit mënu ci dara te yowmal qiyaama day nekk ku la weddi mbokk li may téere yàlla bi yàlla leeral na ci gën jaa magi leeral waaye li ëpp ci doomay aadama yi mbokk xamuñu lii da ngay gis ku judd ba xëy dee am quatre-vingts ans musul toog fu ñuy leeral la téere bi yàlla bi lan mooy diine lan mooy diineem dégg naa ci mag mu baax dégg naa ci yaay ju baax mbokk déedéet lii mooy téere bi yàlla bi tax ñu texe àdduna ak alaxira yàlla nañu ko yàlla xamal wërsëgal ñu dund ko yàlla nañ ci yàlla may texe ak àdduna texe ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk boo xam ne dafay laaj rek ci ne moom dafa yéegoon ne lekk yi dafa doon génn ci biiram ba ci put bi dellu ndax loolu day yàq koor déedéet mbokk loolu du yàq koor lay yàq koor mooy lu ñëw ba ci sa làmmiñ nga jël ko wannaat ko waaye loo xam ne ci put gi rek la yem loolu yàqul koor gannaaw ba mu ne koo xam ne ni yaay ji dafa wooroon ba fukkeelu fan ci koor gi léegi yàlla dogal mu daal di faatu ndax li des ci koor gi dañ ko koy fayal déedéet doomu aadama la nga fekkiwul ci koor kenn du la ko fayal su dee ne daal lam fekke ca koor ga am na ca bis yoo xam ne wóoru ko woon loolee moom ñu fayal ko ko ngëneel la bu leen neexee it daal di ku koy leleel mooy fekk bés bu nekk ñu jël loo xam ne day tolloog culo ceeb wala culo liibar sarxe ko wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam naam waaw lan la jublu woon ci loolu se bi mu naan nañ may indil chaise am bi mooy pour won ko ni man kattanu yàlla la àndal ndax balxiis la doon dégg rek li mu gis yëpp mooy Souleymane yónnee na ko picc yónnee na ko délégation wax nañ ko waaye su jógee fa nga xam ne nii moom mooy fa mu nekkoon ca Sanaa ca Yaman ñëw ca Palestine mille et quelques kilomètres ah la nga xam ne mooy trône mooy gàngu naayam ga bi mu fay jógee ña ngi ko sécuriser ci biir palem ba mu ñëw fekk gàngu naayam bi toog di ko xaar day wone ne kii may amal affaire kii day ah yeneen bi yàlla la moo tax yemul foofu mu daal di koy defara benn palais boo xam ne ci suuf dañ koo def ay verre mu ne ndaw si demal dugg ci palais bi ni mu gis asamaan bi di refléter mu jàpp ne am ndox la mu dindi ay kii yam mu ne ko non lii dañ ko def nii ay verre ndaw si ca la nag ne man day xam naa ne ku tooñ sa bopp la maa ngi jibbulu ànd ak Souleymane jëm ci yàlla te xam ne kii moom ku yàlla subhanahu wa taala jàppale la wallahu subhanahu wa taala alam naam kon yaakaar naa ma ne si doyloo loolu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk